leçon numéro quarante-cinq masalikul jinaan faxiila waxees na ne sufatun baatab tasawuf ma nga génne ci baatab sufatun muy ña nga xam ne ña nga féete woon ca ruqab jàkkay rasulillahi di fa jaamu yàlla bañ tudde leen waa Ruqba ku dugg ca jàkka ja fekk leen ca seen place boobee di ba am nañu wax ne baatab tasawuf foofee la génne waxii la am ñu wax ne safu mooy sàppe sa nga xam ne fala jaamu ko te yàlla yay taxaw di jaamu yàlla am nañu joxañ loola waxiila am ñu wax ne suufun baatëb ngëndël ngëndël mooy deru xar yooyu nga xam ne karaw ga day nooy te der ba nooy ñooñe dañoo dëddu àddina ba loole lañuy ñuy def ak col mooy seen yére di jaamu yàlla ba ñu tudde baatab tasuuf ñooña nga xam ne seen yére ñuy sol suufun yére yi dari xar yu no yooye ñuy wooye ngëndël la ngir won ginnaaw gu ñu won addina xiila waxees na tamit safoon ak sell la fax fu na nga gën a xeeñ ci yow miy jàng diine bu dee danga bëgg a xam baat boobu fan la bàyyi ko waaye yi mu la tuddal yépp da nga cay ak toroxlu ak ragal yàlla ak ak jaamu yàlla ak ak sellal sëriñ Tuubaa nee na waxii la am nañu wax ne yeneen kàddu la moom baatab tasawuf xayrus yi yudut yii am na ñu wax neneen wa kullun ñoom ñépp nag seeni wax minhum ca gaa yu baax yay joxoñ lan mooy tasawuf burhaanahoo seeni lay mustahsanun lu ñu rafet loola indahum fa gaa yu baax ya waaye toujours kenn ku nekk la mu joxoñ diñ ci seen ak toroxlu ak ak jaamu yàlla ci baatab tasawuf diñ ci seen ak sellal jëf mu ne ñoom ñëpp nag axwaaluhum seeni wax tazid day dolli ko fii jëm ca baatab tasawuf boobu lan lay signifier mën nañ koy wax muy dolli ko di gën a bari àllal alfi ba dem ci junney baat alfin mën nay dolliku rek ba egg ci junney baat waaye tax na laxaa nekk gunu fi nekk di lim baati tasawuf lan la ak fan la jóge una fii lay sayu yu day dem ba dootul sax amati njariñ la ca am solo mooy nañ xam ne rek mbiram jaamab yàlla la buy sellal wala asilu cosaanal baat boobu daal muy tasawuf sufiyu muy baatab sufiyu cosaanam daal jàppal ne aalimun boroom xam-xam lay doon amil buy jëfe xam-xamam jëmmi baat boobu daal jàppal ne saa soo ko déggee muy tasawuf wala sufiyu boroom xam-xam lay doon boo xam ne day jëfe bi ilmi yi ca xam-xamam ba haqiqatan ca dëgg-dëgg nag ngir sàkkoo ko ngërëmal yàlla kooku daal mooy nitu tasawuf walam yamil du jeng mukk nag jëm ci lu dul ak jaamu yàlla ak luy gërëm loo yàlla kooke mooy nitu tasawuf fasaara day mujj saafiyan di aji sel minal ak dëri ci nëx nëxi jamono nitu tasawuf daal day mujj dootoo ko gisati dootoo ko déggati ci benn nëx-nëx ma ngay sàkku rekk ngërëmal yàlla jubal ci rekk dootul geesu dara nitu tasawuf sax moom tali alxal bi day diis gann maanaam day fees dell ci ab xolam minal askaari ci yépp xalaat yoo xam ne day dëppook luy jur ngërëmal yàlla mun xati an day mujj sax dagg albasar mbindeefe day mujj baleen li rab bi jëm ci boroomam ak luy gërëm loo boroomam mu musawiyan day dem ba mujj yemale sax dinaara ay nin dinaarëb kii bil madar ak donju suuf moom daal xaalis ak donju suuf lay mujj yemale dootu ko faale ma nga rek sëgg ci luy jur ngërëmal yàlla nitu tasawuf moomu kàllar di day mujj mel ni suuf ndax suuf yurmaa ma ngay dox ma ngay joggi da ngay sànni moom suuf ca kawam lépp luy xeeti taq-taq ak sobe ak mbalit ak lu mu man di doon ma ngay tegu ca kaw suuf ña ngi ko cay sotti ña ngi ko cay sànni fawxaa ca kawam kullu xabiix bépp bon bon ña ngi koy sotti ca kaw suuf waaye nag wala tur doo gis mukk min batniha ca biir suuf boo ko jeqee ba gas ko ba ca biir doo fa gis ilaa mali lu lut lu rafet muy suuf su rafet su sel ab ëpp luñ cay sotti salte boo demee ci sën ba gas ko ca biir suuf su weex dor sel set wicc ci nga fay fekk noonu suuf mel ba lu ne es sotti ko ca koom lu ne es teg ko ca koom lu ne di dox ca kawam te ma nga ne dégg rekk moom suuf set wicc ci biir noonu la nitu tasawuf di mel lu ne lañ koy wax lu ne lay dégg di ko muñ waaye boo demee ci biiram rek fekk mu set wicc leer nañ moom nitu tasawuf mu ne moom suuf yattaaluhal kariimu aji tedd dana jog ci kawam di dox ca kawam moom suuf wala yiimu ak aji soxot nit ku matadi ku jéggi dayo ci mbon te soxot lool ma ngay dox ca kaw suuf wal bërru ak aji baax ku dëppook ngërëmal yàlla ma ngay dox ca kaw suuf wala xaasi ak moyaa konam yàlla ab koo xam ne foo fekk jëfam ak waxam lépp day dëppook luy moy yàlla day dëppook luy jur meram yàlla mooy katab yàlla ma ngay dox ca kaw suuf waaye rek suuf teewul wa tastadiimu ma nga ne dégg moom suuf noonu suuf ne dégge di muñ yooyu yépp noonee la nitu tasawuf di mel foo ko fekk ma ngay muñ tey yëngutu aka jëf lépp loo xam ne day jur ngërëmal yàlla moom nitu tasawuf sëriñ Tuubaa nee na waka sahaabi day mel ni aw xiin muy niir yooyu nga xam ne day gu xam ndox nekk ci kaw asamaaw si waka xattaril ma i mel ni wàccak taw goog ab taw da koy sotteeku di taw fis zilli ma ngay taw ca ker ya di taw ca tool ya di taw ca gàncax ya wa saq yi ma ngay baawaanal fépp ndox ma ma ngay nàndal fépp moom taw bila istisne i ci lu dul accepté noonu mu mel maasali lépp di jariñ ñëpp noonu la nitu tasawuf di mel ni taw ba xiin wa di tiime fépp di tawal fépp nitu tasawuf nitu yàlla noonu lay mel wa man yàkkun ku nekk kasaaka nii ñu wax muñe nii baaxe nii selle nii ame nii xam-xam sakkoo nii ngërëmal yàlla ba ba noppi ku ko jege mu boole la ca ku mel noonu fa huwa kooku nag suufi sëriñ Tuubaa nee na mooy dëgg-dëgg suufi mooy dëgg-dëgg nitu tasawuf awla njee mel na ne neen nudut noonu nag façon daxawaa boroom ak woote rek ñëpp yi dégg mbiram alal maxroofi di ko xam di ko dégg waaye nag du waaja ndax du tax kenn am ngërëmal yàlla una fii nag intaha la jeexale muqaddamul kitaabi lanu jiital ca téere ba léegi nag fal nan sarif nan wëlbati ko sunuy kàddu alli lil awali jëm ca la nga xam ne mooy la jëkk al abwaabi ci bunti téere yi bi waxee tasawuf ba leeral la ñu nitu tasawuf di mel ba mu leer ci sa bopp nag dañuy wëlbati kàddu yi nag jëmale ko ca bunt yi nga xam ne mooy bunti téere bi bunt bi ci jëkk nag mooy albaabul awalu bunt bu jëkk bi fil xalxi di la joxoñ mbindeef yi ndax àddina ay mbindéef dafa nekk yoo xam ne mbindeef mucc ne rek am na lu mu la mën a yàqal yow jullit ihlam xamal waqaana laahu yal nanu yàlla musal kula mahlaki ci lépp luy alake waxaadanaa turan te yal nu yàlla ommat mboole sunu li xayril maslaki yóbbu mu yóbbu nu nun ñépp ci ngën ji sóobuwaay ba teg nu ci yoon woo xam ne ku fa jaar di nga am ngërëmal ci boroom analtifaata abidin naka geestu gog jaamab yàlla ba ma koy geestu lil xalxi jëm ca mbindeef ya ak la mbindeef ya yor yox jubu geesu ko day yiir baynahoo digganteem wa baynal aqi ak diggante aji dëgg ja di yàlla nit saa su demee ba mujj day soxla mbindeef ak la mbindeef yor loola da koy yiir digganteem ak sunu borom